الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله bokki noo ngi sant yàlla sunu borom tabaraka wa taala di julli ca yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam di leen nuyu ca lislaam muy assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu kon bokk yi alhamdulillah nu fas yéene dellu si waat àndaat yéen ci sunu fàttali yi nu doon amale ci téere bi di xisnul muslim sunu fàttalik tey ci ban dikkar la jëm dikkar la gu siiw lool nu di ko fàttali lu gën a bari ci sunuy fàttali dikkar la gu siiw lool waaye di di gu bari aw yiw di dikkar gu bari xéewal lool lool lool ba foo ko takk rek weesu na ko waaye nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallama noonu la mel mboolem adkaar yi muy jàngale yépp boo ko càmbare benn boo ci dajeel dangay defe ni moom moom aw moom rekk am yiw kenn mënta takk aw yiwam muy ban dikkar muy subhaanallahi wa bihamdihi dikkar gu siiw la subhaanallahi wa bihamdihi bii nag ñaata yoon lañ koy wax moom bii moom téeméeri yoon lañ koy wax cent fois boo ko seetloo ci zikkar yi ñu doon jàngale yi nu war a wax subaak ngoon dangay dégg ñu ne la bii benn yoon bee ñetti yoon bee ñeenti yoon bii nga wax ko suba dong bii nga wax ko ngoon dong ak yu mel noonu waaye bii nag nekk téeméeri yoon kon bari na lool waaye li muy bari bari bari ci ab lim yiw wi ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax moo ko gën a bari xéewal gi moo ko gën a bari te yiw wi ak xéewal gi ñun ñépp a ko soxla bokki jullit nañu ko déglu bu baax euh, dikar gi xadiis bin ko jëlee mi ngi jóge ci abu hurayrata yàlla na ko yàlla gërëm nu déglu bu baax dan la abu hurayrata wax ci ci gi abu hurayrata nee na bi sallallahu alayhi wa moo wax ne loo yonenti bi wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallama nee na képp koo xam ni wax na subhaanallahi wa bihamdihi nee na képp ku ko wax lu ma téeméeri yoon cent fois nee képp ku ko wax cent fois suba ak ngoon ku ko wax téeméeri yoon suba ak ngoon nee na ëllëg yowmal qiyaam ci kanamu yàlla kenn du fa indi lu gën li nga indi yow lu dul ku def comme li nga def mbaa ku def lu ko gën a bari dégg ngeen wax subhaanallahi wa bihamdihi nga wax ko téeméeri yoon suba ak ngoon yonent bi sallallahu alayhi wa nee na ëllëg ci kanamu yàlla kenn du fa indi lu gën lu gën li nga indi yow lu dul ku wax comme li nga wax nii walla ku wax lu ko gën a bari xadis bi muslim moo ko solo bokki jullit yi yiw wi dara féetewu ko kaw dara féetewu ko kaw ñun ñépp bu ñuy liggéey ngërëmal yàlla lañuy sàkku njéggaluk yàlla ak yërmandeem lañuy sàkku ëllëg yowmal xiyaama aljanna ju kawe lañuy sàkku ëllëg ca kanamu yàlla yow nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam garanti la ci kàddoom ni yow mi wax subhaanallahi wa bihamdihi cent fois suba ak ngoon nee na yowmal qiyaam kenn du la fa gënle lu dul ku wax comme li nga wax mbaa ku wax lu ko gën a bari muy benn ci yiw yi boobu rek kenn xamut nu mu toll mooy benn des na beneen yiw ba tey ñu jëlewaat ci abu hurayrata ci xadis boo xam ni buxaari solo abu hurayrata muni ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni kon yonent bi waxaat na nee yonent bi nee man qaala سبحان الله وبحمده مئة مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر fii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ni képp koo xam ni wax na subhanallahi wa bihamdihi ci journée bi mu wax ko cent fois kon fële def ni ku ko wax subaak ngoon di nga am lële fii nag mu ni ci journée bi rek moo xam muy suba moo xam muy ngoon moo xam ni muy ci bëccëg gi en tout cas ci journée bi daal bala moo jeex wax nga ko lu mat cent fois lan mooy xew yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla dana la jéggal say bàkkaar nee na donte say bàkkaar dafa baree baree bari ba toll ne duusu géej yi tubaab mu ngi koy wax muus de mer boo demoon ci géej gi nga taxaw ci tefes gi dangay gis géej gi ni muy ni muy bëbboo mel ne que day jële ci biir géej gi am ndox mu bari di ko sànni ci tefes gi di yuuxu comme ay vagg nee na say bàkkaar bu bari woon ba toll ne vague yi ba toll noonu muus de mer say bàkkaar bu bari woon ba tol noonu yow nga wax subhaanallahi wa bihamdihi ci journée bi cent fois nee na say bàkkaar yépp yàlla dana lu ko jéggal dont dafa bari ba tol ne mousse de mer donte dafa bari ba tol ne vague yi gis nga ko boo taxawoon ci tefes gi ndox moomu di bëbb di ñëw ni muy baree di dóor yonent bi ne na say bàkkaar bu tolloon noonu ci bari yow nga wax lii cent fois yàlla dana la ko jéggal say bàkkaar yooyu noonu allahu akbar ana wan yiw moo gën a rëy yiw yi bokki jullit yi te liñ ci mën a wax bari na lool lool lool moom subhaanallah wa bihamdihi waaye nag nu yemande ci ñaari yooyu nu bàyyi ko xel mi ngi bokk ci adkaaru sabaax wal masa soit nga wax ko tous les matins et tous les soir maanaam suba gu jot ak ngoon gu jot cent fois nga wax ko wala nga wax ko ci journée bi rek cent fois bu ci nekk am na yiwu boppam bu dee da nga koy wax tous les matins et tous les soirs maanaam suba gu jot ak ngoon gu jot danga koy wax cent fois ngoon ak suba gu jot yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yowmal qiyaam kenn du fa indi lu gën li indi ci kanamu yàlla lu dul ko wax comme li nga wax mbaa ko wax lu ko gën a bari wala nga wax ko ci journée bi rek cent ci journée bi rek wax nga ko ci cent fois yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla sunu borom dana la jéggal say baakaar donte bàkkaar yi dafa bare baree bari ba tol ne vagg yi loolu moom xam ngeen di bari na nee na sunu borom dana la jéggal say bàkkaar ci loolu kon sunu fàttalik tey mooy loolu subhaanallahi wa bihamdihi ñaari kàddu yu gàtt subhaanallahi wa bihamdihi téeméeri yoon suba ak ngoon wala nga wax ko rek téeméeri yoon ci bés bi loolu mooy sunu fàttalik tey bokki jullit yi yal na nu yàlla boole defal tawfiq boole nu defal jàmm fi dunya wa fi axirat defal ko mboolem jullit wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh